ci euh, projet bi euh, satisfaire na la parce que ñu bari ñu ngi wax naan lañ ñu digoon ak li ñu présenté c'est diamétralement opposé lii taf yëngal la euh, sàcc xelu jàmbur la boole ko ñëw ne sénégalais lii mooy li ñu war a doxal <laughs> sa jàngat ci loolu. ah buñ sàccee xel baax na. la nekk xel bu jëriñ Sénégal rek. <laughs> am na ay débat xam ne ay débat stérile la ko di débat polémique pour man plus important yan défi moo ñu war a interpeller euh, des défis majeurs qui qui qui nous attendent la preuve soo génnee Sénégal ñëwaat sa réew da nga xam ni am nañu retard ci domaines yu bëri euh, tey enjeux yi àdduna bi fi mu toll donc dafa mel ni matière première bi ñu am Sénégal wala sur la chose politique au moins fan on parle économie on hmm. parle développement donc pour man c'est déjà ñi waxoon ni ñii amuñu luñ teg ci seen loxo kon am na lu ñuy yëkkati teg ko ci loxo sénégalais. changé nañ débat bi quoi donc. voilà mm-hmm. dañ doon wax ni nit ñi sax doon wax ne même buñ amul sax bëgg nañ même buñ mënul bëgg nañ parce que yéen ñi fi nekkoon doy na. c'est si sedd ñëw ne am na lu teg ci loxo li ñu teg ci loxo nit ñi. c'est à parfaire. jël nañ xalaat ak xalaatu sàmba xalaatu Demba gën naa baax kon <laughs> kon ça veut dire demewuñ seen xalaat ñi ne dañoo jël seen xalaat ñoom nañ leen wax jërëjëf bu fekkoon seen xalaat Sénégal moo leen taxoon jóg am nga xalaat bu baax keneen ñëw na teg ko man ma jàpp ni sax yow danga doon xaar projet mu indi projet nga ne li nekk ci projet dafa mel ni sa bas la ko jëlee kon kay yow dugg nga ci projet. débat boobu c'est c'est un débat je ne suis pas sur la paternité du projet pour man le plus important mm-hmm. mooy est-ce que on va se retrouver dedans hein est-ce que sénégalais yi dinañ ko traduire c'est tout à fait logique et normal il fallait s'attendre à cet exercice parce que Abdoulaye Wade bi mu ñëwee en deux mille dafa décliner sa vision libérale parce qu'on avait une vision socialiste qui était là Wade quand il est libéralisme boobu am na ay conséquences yu positif comme am na yu négatif parce que tey ñëw na mu ñëw teg plan de développement économique et social mu wéy ci mag Sall bi mu ñëwee da ko fëllax fële ñëw indi son PSE ne deux mille trente cinq ñii tam bi ñu ñëwee ñëw nañ indi nañ luñ teg ci loxo nit ñi maintenant pour man euh, am na loo xam ne c'est un débat politico-politicien moi ce qui m'intéresse ça doit être le débat technique techniquement sooy sooy soo yoree avion di ko dawal da ngay am lu ñuy wax plan de vol. parce que amul plan de vol doo dem. sinon boo demee tu vas tourner te soo moytul avion ba daan donc ton plan de vol. munoo yor réew te yoraloo ko ci planification. boo nga xam yow fi nga toll. ak fi nga jëm ak fi nga jëm. boo fay dem looy yóbbaale. ak noo fay demee. boo fa eggee parce que boo bu fekkee doo def de la projection doo doo avancer donc pour man c'est bien ñu am de la projection que en deux mille cinquante parce que ce qui est sûr yàlla nañ ma fekk <laughs> yàlla nañu fi fekk. amiin ñeneen bu ñu ñëwee ñu projeté wu ñoom deux mille cent fekk ñoom bu ñuy ñëw dina fekk base yi nga xamante ni waroon nañ ko am mooy fondement yi ñu teg ko donc pour man c'est c'est hyper important maintenant. sur les quatre piliers fondamentaux. Moi, je me retrouve dans ces quatre piliers fondamentaux. cest à le premier pilier fondamental, quand règle pas la question de la bonne gouvernance, la question des institutions, la question... Euh, loolu mooy base fondamentale bi nga xam ni moom moo koy téye bu ñu jógee ci loolu seen beneen pàcc bi nga xamante ni wax nañ ko mu nekk loo xam ni jàpp naa ni luy am solo la mooy tey sur le plan économique nan la ñuy def ba am économie boo xam ne c'est endogène parce que ñoom lépp ils te disent un Sénégal souverain et prospère moi je crois que niñ ko balaa ngay wax prospérité nga am souveraineté mooy li Olof Ndiaye di wax balaa nga naan naam ne fa mhm. donc man j'ai toujours di et ça a été mon combat de tous les jours c'est mon rêve de tous les jours moi ñi ma bëri ñu may dégg dañ may dégg may wax ay waxu souveraineté hydraulique souveraineté numérique c'est des questions fondamentales parce que dafa am ay piliers yoo xam ne ci sa réew boo ko maîtriser wul munoo dem munoo sori bu fekkee ndox mi ngay naan waa France ñoo la koy gérer tey ci télé bi ngay nekk di liggéey internet bi tout ce communication bitim réew moo ñu koy gérer suñu ay marché yu mag bitim réew moo ñu koy gérer comment voulez-vous que ñun ñu développer te développer wu ñu ay stratégie bu am développement endogène boo xam ne ci li ñuy sukkandiku. ci sunu doole lay nekk ci suñu potentiel lay nekk donc je crois que euh, c'est une question importante beneen bi vous avez vu tout à l'heure sur la projection la compétitivité aadna bi tey réew pour mu mën a sori dafay am compétitivité mais tey boo xoolee suñu structuration économique suñu entreprise yi ñu am li ci bëri ay entreprise yu néew la yenn yi secteur farma informel la bu fekkee amuñu capacité mën a développer mën a compétitif dafay poser problème parce que nous ne sommes pas dans un monde fermé mais bi si ëpp solo ëpp ci njëriñ man je l'ai toujours dit am nañ jamaa am nañ pétrole am nañ lépp mais dañu am ressources humaines mais nos ressources humaines quand de capital humain c'est hyper important parce que réew li koy doxal mooy nit ya fa nekk nit yooyu pour ñu doxal ko nit ñi war nañu dund ci qualité mm-hmm. war nañu am fu ñu dëkk war bu ñu feebaree war nañu faju war nañu am xam-xam. quand on parle de capital humain parce que le capital mooy mooy mooy la base fondamentale et ce capital humain ça ça nécessite un investissement dans les politiques publiques. il faut que que les services sociaux de base. Gueye l'original demain il va se déplacer pour aller dans le Sénégal des profondeurs pour aller soutenir des gens yoo xam ils ont juste besoin de lunettes pour voir des gens qui n'ont jamais vu d'ophtalmo donc mooy dund mooy feebar faju mooy xam-xam. loolu rek défi la quand même bu mag. Ah, léegi nag il faut ñu changer le cursus. ñu ñu doon développer on va aller sur des infrastructures tabax nañ dëkk tabax ay pont mais dañu war a tabax ay nit. donc pour man le capital humain c'est hyper important. Mm. maintenant ci ci ci ci mbir yooyu. boo ko tegee parce que na ma génn na la génneel tableau bi ñu mën ko faram fàcc rapidement je crois que quatre images yi c'est symbolique. parce que kër day am fondement mais fondement bi te am réew question bi ñu doon wax yëpp amoon nañ tout pour développer mais bonne gouvernance moo ñu yóbbee lii yëpp. bonne gouvernance donc soo régler la question de la bonne gouvernance nga def say réformes def say institutions mu dëgër. indi capital humain nga jublu ci sa wàllu réew développement durable wàllu aménagement du territoire li politique publique nañ koy territorialiser créer ay pôles yoo xam ni on pourra industrialiser. fexe ba réew mi fu nekk. Hmm. ñu fexe ba potentiel bi fa nekk. ñu jeqi ko mën koo jëfandikoo. donc foofu il faut nga am une vision globale mais aussi une vision lointaine. Hmm. maintenant nag tant que réglé woo mbir moomu. réglé mbiru nit yi doo mën a egg ci économie te économie li koy doxal doomu aadama yi ñoo koy doxal doomu aadama yi pour ñu doxal il faut ñu am cadre boo xamante ne permettre leen ñu mën a évoluer je crois que. ils ont ils ont lancé euh, lu ñu doon wax les gens disaient que amuñ projet amuñu dara au moins ñëw nañ am na lu ñu teg maintenant ci li ñu indi projeté nañ wane nañ génnee nañ léegi nag jëfe bi moo des non parce que ci six mois mënoo ci tabax kër. waaw man su ma amoon yàlla may ma war a tabax kër ma jox maçon ci six mois mu karo lépp pare lépp mën na ko sa kër gi baaxul. ma dàq ko. donc nag il faut qu'on se projette pour se projeter vers le futur demain c'est aujourd'hui que ça se fait tomorrow indi nañ un programme teg nañ seen plan donc pour man c'est c'est c'est salutaire ñi doon wax amuñu plan te ñoom ñoo xëy ne ay plagier waaw comme dañoo plagier c'est bien. ndax euh, man maa mosoon bugaat moo ne dañ ko plagier. waaw moom nee na am na lu ñu jël ci. programme. programme tekki. ah mais am programme moom amoon na programme. bi mu amee programme amul parrainage. jàllul. non amoon na ñaaw gaay waaw non amul jàllul parrainage. Guèye moo demoon. Guèye moo nekkoon mandataire waaw mais li ma bëgg wax mooy. même su amee programme mooy am na yéene. comme nag yow. non on avait on avait un bon programme. oui oui vous avez un le programme Tekki li ma yàgg di wax mooy que même on comparait nos deux programmes avec le programme de PASTEF et y a eu des c'est normal dinaa ci ñëw. maintenant li ma jaaxal nag mooy entre temps ña doon def comparaison ci ñaari programme yi tey taxaw nañ ne eh, PASTEF amul programme. oui mais waaw raison de plus il m'a dit que <laughs> comme moom il était au cœur de ce dispositif PASTEF gëm sa bopp indi programme ñu ne seen programme yi neexoo na ca jamono boobu. ñi doon wax ca jamono boobu neexoon na ñoom ñoo taxaw ne ñi amuñu woon programme mais man sama logique nekkul foofu parce que mm. moi j'ai entendu Bougane su ma woo woon ma am solution ci benn problème je suis man ma jox ko solution bi j'avais applaudi j'ai dit c'est donc bu fekkee ni moom il se voit dans programme wala gis na une partie de son programme dans un programme pour man il devrait applaudir devrait diir au moins que ñii ils ont en œuvre mon idée et ma vision par rapport mais mooy grandeur boobu ngay wax c'est-à-dire pour man c'est un débat stérile le plus important mooy ñun nan la ñuy def si situation réew mi de 1960 à nos jours politique publique yi ñu am dañu échoué dañu échoué moo tax booy di génn ci gaal yi hmm. dañu échoué parce que ba tey wàllu dëkkuwaay sa pose problème hmm. suñu politique publique dañu échoué ba tey Sénégal kilo la bopp libre yaram la c'est-à-dire tout est concentré à Dakar mm-hmm. dañu échoué parce que moment bi ñuy toog est-ce que am nañ cette équité sociale mm-hmm. est-ce que le Sénégalais qui qui qui grandit aux Almadies il a les mêmes chances que Sénégalais bi màggee biir Grand Yoff par exemple est-ce que le Sénégalais qui habite à Goudiri a les mêmes chances que le Sénégalais qui habite à Dakar Plateau donc pour moi c'est hyper important donc nag dans ce symbolisme moi je crois que comme li ñuy wax on a une population qui va évoluer on a une population boo xam ne fii ak deux mille cinquante dina doubler il faut que ñun ñu préparer en conséquence il faut ñu am une vision lointaine et non une vision boo xamante ni elle est rétrograde maintenant euh, sur la chose politique un mandat a une nañ ci seen programmation ci juróomi at yi am nañ seen i acte stratégique te réew boo ko jëlee il faut nga am ay jumtukaay nga xam fu mu toll jumtukaay yooyu nag boo xamee fu mu toll à partir de jumtukaay yi nga yore ci ngay mën a dem man gëm naa ne réew mi day naat je dis que tout n'est pas mauvais am na lu Macky def am na lu Ablaye Wade def tout n'est pas mauvais. Mhm. Macky rey na boppam ci pétrole bi kërti kërti ci petrole bi mais bi bari ko pétrole bi di génn fekk ko fi waaye ressource boobu buñ ko amee fan lañ ko war a dugg je donne juste un exemple regardez Dubaï comment ils ont fait amuñu woon dara ba tey soo demee Dubaï tu peux aller visiter day c'est les anciennes cités yi nekkoon Dubaï mais ils ont compris bi ñu amee ressource bi dañu am lu raar loo xam ne àdduna bi yëpp ko soxla mais xam nañ ni tôt ou tard pétrole bi dafay jeex mais dañ dem wut ay alternatives yoo xamante ni mën na remplacer mbir moomu ñu créer de la valeur ils ont construit Dubaï pour en faire un hub mondial ils ont rendu leur pays attractif ils en ont fait un marché mondial mmh. donc nous les ressources qu'on va tirer du pétrole fan lañ koy dugal pour mu jur leneen moo tax c'est important ci wàllu mbay mi développement mënul am te maîtriser wuñu mbay mi mënuñu am suuf am ndox te mbay mi duñ ko doxal mais bu ñu bàyyee ba pare nuñ koy def mhm. mooy de la transformation cette transformation war na créer emploi j'ai entendu le président parler d'une politique d'industrialisation ba nga xamante ni ñun yu bëri dinañ ko mënal suñu bopp moi je crois que pour man euh, si je devais dire je je trouve que c'est c'est un bon plan qui est élaboré et qui est explicite maintenant dans la réflexion chacun peut y apporter et pour man Bougane ak keneen il joue le rôle aussi parce que dans un pays on a besoin d'avoir des voix discordantes qui seront là pour te dire que ah gisewuma ko nii nii laa ko gisee man li ma gën a soxla mooy na débat bi kawe au lieu ñu may yóbbu ci ay nenu baxal ay yenn <laughs> affaire en tout cas même le premier ministre tontu na ci lool parce que moom nee